le spirituel euh, bu ñuy tuddee Thione Ballago Seck ça revient beaucoup sànq ba nuy tàmbali sunu euh, entretien euh, def naa moom sax nga tàmbalee le spirituel compte beaucoup ci con Seck. doom boo xoolee jamono ji ni mu tëddoo boo xoolee asamaan ak suuf. Hmm. benn laalantigul ak sa morom. Hmm. te su. man bi ma juddoo ba léegi ndoxum géej ba dafa mas a saf xorom te ba léegi changé wul te kenn mënul fexe ba taw bi jóge ci suuf ci kaw rek la mën di jóge te ma jàng ne ndox mi taw ci banaana ba mu saf suukar même ndox boobu boo taw ci kaani ba mu saf kaani damay jàng ni euh, y a sûrement sûrement quelqu'un de derrière su ma gisee euh, sama xarit wala samay dëkkandoo wala ñoo xam ne xam naa leen tey jii ñu ngi ci biir suuf te mu leer ma ne ku ku ku sa wërsëg jeex nga dem ko dégg ne ñu ne diw génn na àdduna rek parce que lekk na dernier centime ci wërsëg bi ko yàlla jox ma jàng ci sama expérience ne bu sa wërsëg jeexee quarante jours nga am ci kaw teer pour dem ma gën a gëmaat ne y a sûrement quelqu'un derrière c'est quelqu'un moomu nag moo yàlla suñu borom te kenn la tàmm def ko ngën ngi fu mu yoon ci yàlla Muhammad te ma gëm ni loolu moom mu am fekke ne loolu moo tax ñuy sukkandiku di am ay vision sur le plan spirituel lu nekk la yàlla rek mooy dëgg le reste ci say jafe-jafe bi ngay toll ci ay metit ak ay nakar sentir nga présence bu baax a baax. a baax a baax moo tax man yàlla rek kay. dimbali na la bu baax. bu baax a baax moo tax man yàlla rek kay dëgg parce que xam naa ne bu ci jàppul woon kon Thione kenn waxatu ko yàgg na ak lan. lan ngay yóbbante bu boobaa doomu. aadama yi ci boppam de façon générale par rapport ak euh, ak seen borom. xanaa d'abord ñu ñaan yàlla ñu yàlla dimbali àtte ñu ci yërmandeem ndax bu ñu àttee ci suñuy acte noo tama ëpp buum ñaareel ba tam lu waay man ci jàmm yàlla def ko ndax tukki boo xam ne kenn xamul kañ la naka la fan la te faw boo boo demee fekk fa liw hmm. yóbbaaleen mbajjuy dëgër di nga koy xalaat d'habitude. moo tax ma wax la ko. tukki boobu noonu. jaay ndey de chaque instant xam nga am naa léegi 63 ans. Hmm, macha bi nga xam ne moom la ñu jagleel yàlla na gën a yàgg. amiin bi nga xam ne moom la ñu jagleel jullit. Hmm. boo rombee âge bi yont yàlla Muhammad am rek loo ki teg bonus la. Hmm. mais âge jullit dëggantaan. yonti bi dund na soixante deux ans il pare que sax am am na ñu ne soixante trois ans mais diggante soixante deux ba soixante trois boo ko dundee hmm. leneen lu yaa ngi ci bonus